yëf yaa ngoog nii ngeen di def nii lii la ma waree man ci Serigne Cheikh kon bëgg naa ñu waajal ko euh, bu ñu génnee ci liggéey yi nga xam ni moom la ñu dëg ma ba noppalu tuuti na ngeen xam ne faaw nu siyaare ji nag def ziar général waaw ziar général boo xam ne dañuy dem fekk sëriñ bi Touba ak wala fu mu mën a ne ñu fekk ko Ah, waaw loolu daal nan ko fadam kon ñaari mbir yooyu soxna yi ak ziar général loolu moom bëgg naa ñu daj jëwriñ ñi daje sax far damaa bëgg jëwriñ ñëpp nañu daje ngir waxtaanee loolu muy ziar général bi ak mbiriñ soxna yi daara yi ñu seet ñi nga xam ne war nañoo am soxna ñu jox leen ko mel ni doomi kii fay ji Ah, déedéet ah, doomu ki fi toog fi toog léegi. sëñ Sall. Cheikh Ibra ku mel ni doomi Cheikh Ibra Faye ji nga xam ni moom maa ko tudd kooku mat naa am soxna bu ñu xaar ci jox ko soxna ah te ci waxtu wii la baaxe waaw ah? ndax man dama cee xam dara man bi may am ñaar fukki at ak benn la ma sëñ Béthio jox soxna ma doon xale bu ndaw waaw vingt et un ans ah te moom am na vingt et un ah, vingt et un ci laa sakk ci laa am sox te loolu rek ab murit day day teel am sox ndax mooy mooy ci taalube gi dalay lay dimbali waaw day tax euh, li ñu li ñu sartonte ak taalube mu mu man koo mu man koo matal mm. loolu day day rafetal ak taalube kon nag na leen ci góorgóorlu nañ dem jëwriñ yi nañ ci daje te waxtaan ci waaw ah, waaw jëlal initiative bi waaw nañu daje waxtaan ci nañu jël benn samedi bu ñu ginnaaw gàmmo gi ak liggéey yi fi dox nga xam ne dañoo tàbbi Xelcom war a tàbbi ci liggéeyu sëriñ bi loolu du yàgg dans deux semaines fekk ñu noppalu ñu daje pour waxtaane loolu fixé date bu ñu demee ziar def ziar général ci sëriñ Cheikh ak soxna yi nga xam ne war naa leen a boole ak cant loolu daal moom bëgg naa ñu defal ma ko ngir jëmmi sëriñ sax ku ko def da nga ci daje ak ngërëmul sëriñ de waaw waaw loolu daal ñaan naa leen nga cuun rawale nga ñëw ba ku la topp raw rawa mu sukuri la la te sanooni nga cuun rawale nga ñëw ba ku la topp raw rawa mu sukuri la la te sanooni Gracias. Thank you.